attention lu ne fang kenn ko jeex. centre formation couture Nder ISBA ngay am foofu. bi nekk tali sona may am face. dëgg lu tuuti dëgg lu ndaw xam ne ne xale Nder ISBA gi ñoo ay le 7 janvier bu ko kenn tardé. Eh, na mu romb kenn du na mu tey baax. xale Nder ISBA gi rek foofa dara dafa doy laa la. remise de diplôme xale Nder ISBA ñoo ay le 7 janvier eh, bu ko kenn raté. yaakaar naa dégg ngeen ko bis baa ngi doon. doon laajte dat bu baax baa ngi noonu dëgg du neex dëgg du ndaw dëgg du rombe noo xale Nder ISBA bag yi ñoo aaye waajal la sept cent bi waa centre formation couture ñoo ngi leen yëgal bis bu rëy bis bu xumb vendredi le sept janvier incha allah waaw kon ni ko xale yi waxee xale yi ngeen inspiré rek yaakaar naa bis boobu kenn du na sañ sa robe yu baax tey bâche yu baax bis boobu lañ ko nar gis ak xale yi ngeen inspiré rek bu ko kenn tardé incha allah